bu ñu demee ci téerub téere boobu Cheikh Abdul Ahad dajale woon ñu koy wax al majmua te mu dajale ci xikmay Serigne Touba yi te Serigne Abdul Ahadum Serigne Soxay bu bind ko ku dem ci xëtu juróom-ñett fukk ak ñeent 84 da fekk wax ji may wax Serigne Touba dafa wax ne maa ngi leen di dénk juróom-benni baat maa ngi leen di dénk juróom-benni baat yoo xam ne ni làmboona juróom-benni téeméeri njariñ ba njëkk mooy bu nit ñi soxlawoo ay ngëneel yow na nga soxlawoo farata te it am na mag mu baax mu daan wax ne bari pexe de saf yàlla ko gën <laughs> beneen baatu ñaareel mu ne bu nit ñi soxlawoo bindeef yi soxlawool aji bind ji te it boo gisee suñu borom wax ci alquran ne yéen nit ñëpp de ay faqir ngeen ay ay fuqara ngeen yàlla rek mooy aji woomal ji yaa ayyuha nnaasu antumul fuqaraau ila llahi wallahu huwa alganiyyu alhamid am na sax fu sëriñ Tuubaa yi waxee ne man de dama jéggi nit ñi jéggi li ci seeni loxo jëm ci borom nit ñi ba ma fa àggee jox na ma njariñul nit ñi fegal ma lori nit ñi jaawasu naasa ila rabbi jaawasu naasa wa ma fi aydi naasi ila rabbi naasi wala ma wasaltu ila rabbi naasi ataani nafa naasi wa kafaani durra naasi beneen baat ba ci topp mu ne bu nit ñi soxlawoo xam-xam yow soxlawool jëfe li nga xam te it euh, xam-xam moom lu mu bari bari bu ko borom jëfewut daanaka amala ko njariñ moom la Sëriñ Tuubaa di wax ci téere boobu ñuy wax ma xaalixu niiraan di wax ne euh, wa man xawa ilman wa laysa yacmalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu lu waay làq ci xam-xam lu mu bari bari te jëfewoo ko yaag mbaam mu safi téere yéen yam am na ku ñëwoon ci moom ci njaareem bëgg a jonganteeg moom ci wàllu xam-xam doon ku bari xam-xam lool ngir ñëw bëgg koo natt ci wàllu xam-xam di ko xamal xam-xam bu rëy bu mu am Sëriñ Tuubaa ne ñu de li ñu xama ko su néew dañ ne siiwee jëfe ko daal di dugg ci biir génne ab téere bu rëy di ko liir kooka jege si ba gis téere ba waaye xamu ci benn baat xamut sax ci ban làng lañ ko bind kon jëfe xam-xam moo gën bari xam-xam buñ jëfewut ba ca des mu ne bu bu nit ñi soxla mbirum zaahir yow nanga nga yittewoo mbirum baatin buñ demee ci alquraan dañuy fekk suñ boroom di wax ne yéefar yi muy tubaab yi bu dee wàllu saayir rek ñoo ñoo ko ëppale ñëpp waaye mbirum àllaaxira ak mbirum baatin dañ caa sàggan yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia wa hum an al axirati hum gaafiluun ba ca des mu ne bu nit ñi soxlaa dundug àdduna yow na nga yittewoo dundug ndax àdduna ak kat ñaari wujj lañ yoo xam ne nii woo ci may yitte rek ñàkk wa ca des te wujj woo xam ne nii kat ak màggatam akuk deeyam day gaaw akuk tilimam akuk akuk ñaawam akuk jagadem kenn du ko jënde wujj woo xam ne ni saa bu xëyee day gën di rafet te du dee te mooy àllaaxira ba ca des mu ne bu nit ñi yittewoo soxlawoo ayibi nit ñi yow nanga nga soxlawoo sa ayibi bopp te it loolu rek mooy li am solo ndax ayibi nit ñi moom lu mu yàgg-yàgg seeni ayib la ñoom lay wàññi yow sa ayibi bopp moo lay wàññi kon nag lii itam wax la ju ama am solo joo xam ne nii ju mata bàyyi xel la te mata yeewu Sëriñ Tuubaa nag damay wax ne amul genn fànn goo xam ne ne yeewuñu ca moom daal bu fekkee dañoo të yeewu day mel ni suñuy nelaw ñoo koy bëgg a tey waaye fànn gu ci nekk rek bind na ca loo xam ne ni lu ñu doy sëkk la loo xam ne ni manis na caa jàpp manis na ko jariñoo itam kon kay dañuy ñaan suñ borom mu defal ñu ak dégg ak topp tey ñaan suñ borom mu fayal nu ko te defuñu dëggi dëggi ay taalibeem yum nangu seenug taalibe